wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci télé bu mag bi bàyyikoo bi ci biir jumaay Tuubaa ji MK TV ñoo ngi leen di nuyu di dellusiwaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal mooy jataay mboorum yonent bi alayhi salaatu wa salaam di jataay yoo xam ne dañ ciy waxtaane jaar jaaru jaar yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci faram fàcce tey jii nag mooy jataayu fukkeel bi ak juróom-ñeent ñoo ngi tolloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee màkkatal mukarrama di gàddaay waxtaane nañ waajtaawe ca màkka waxtaane nañ li ëpp ci li xewoon ci yoon yi bi mu jógee màkkatal mukarrama jëm madinatu munawara ba yegsi woon nañ ci bi muy dugg madinatu munawara ba agsi xubaa waxoon nañ it andi woon nañu ab taarif wala ak xamle gu tënku rek ci dëkk bii di a munawara euh, mooy ban dëkk ñu waxoon dëkk la boo xam ne ña fa dëkk ñu ngi séddali ci ñaar ñii ñu ngi bokk ci aws ak xasraj ñi ci des ay yahud lañ ñu waxoon ne it yahud yi ñu ngi séddali ci ñetti famille famille boo xam ne ñu ngi leen wax yahudu bannu Qaynuqaa ñi bannu Nadir ñi bannu Xarisa ñi ci des ñooy Aws ak Xasraj la ëppoon ci dëkk ba ñii ñu ngi doon ci diina yahud ñi ci des ñoo ngi doon jaam ay xiram waxoon nañu ne lu jiitu yonent bi di ñëw a Munawwara nga xam ne Yasrib la tuddoon indi woon nañ cosaanu baat beeg fam bàyyi koog yëpp ci bind ya weesu woon waaye bi yonent bi ñëwee lañ tudde dëkk ba nag ma Madinatul a daanañ ko wooyu daarul hijra wala daarul islaam wala tayba wala taaba yëpp ay turam la yoo xam ne nii yëpp mu ngi bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye li ci gën a siiw nag mooy dëkk bi nga xam ne mooy dëkkub yonent bi wala mooy dëkk bi nga xam ne mooy leeral muy madinatu munawara li nga xamee ne noonu la yonent yàlla ibrahima ñaanale woon waa màkk suñ borom def ko mu nekk dëkk bu naat boo xam ne nii ña fa dëkk suñ borom da leen def defal luñ jàpp ba mën a jaamu yàlla ci anam goo ko yàlla gën a bëgge noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanale woon waa madinatul a ci dana feeñ ci waxtaan yi jëm incha allahu taala bi nga xamee ni yonent bi ñu ngi agsi woon ci bi mu agsee Quba masjidu Quba nga xam ne yoon woowu la jaar foofu la duggee waxoon nañ ne bisub altine la dugg Quba ci juróom-ñetti fan ci weeru gàmm mu ngi daje woon ci nattale yi nga xam ne ñiy jàngale siira nee nañ boo xoolee mi ngi tolloog euh, weeru septembre ñu ngi ko ñu ngi ko datale sax ci 23 septembre ci la dugg ci xur woowu nag nga xam ne nag bu doon région la wala dëkk la bu mag dama naan ci la commencé dugg nag ci xuru yi nga xam ne nag mooy loolu ci atum 622 ci miladiya bi nga xamee ne woote bi dem na fukki at ak ñeent nga xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci juróom juróom fukki atam ak yu teg saxaaba yi jiitu woon ko dem moom mu ànd ak Abu Bakrin Quba def na fa altine talaata àllarba alxamis loolu ñeenti fan la wax nañ ne ci alxamis ja ca ngoon ga am nañu ne sax ca suba ak àjjuma ga ca la xëy wuti ma madinatu munawara Quba googu fa la sos jàkkaam ju mag jooju nga xam ne mooy jàkk ji njëkk ci lislaam moom la borom bi wax ci alxuraan naan ko jàkk jooju nga xam ne bis ba nga yegsee rek nga ko sanc jàkk jooju jàkk joo jàkk la joo xam ne masjidu taqwa la la masjidun ussisa ala taqwa min awwali a axaqu an taquma fii booba ay xew-xew la woon yoo xam ne incha allahu taala yoo xam ne munaafiqu ne yi nekkoon na wara ñoo am ay pexe yu ñu doon def ba yàlla di ko xamal ne ko jàkk jooju moom jàkk la joo xam ne taxawal nañ ko ci taqwa fu mu dem nag ba jaar fa day am kiimaan gu fay feeñ kiimaan ga mooy dañuy gis nature bi ci boppam waxuma la mbégtam nit ñi waaye jëmmi nature bi ci boppam day jékki jëkk rek soppeeku soppeeku goo xam ne pièx la ñuy gis moo xam ne ak leer goo xam ne gis ci nit ñi daal ñu seet ñu maanaam ñu ñu am pièx moo xam ne ak dal goo xam ne dañ koy seetlu seen bopp nga xam ne bu mu jógee xubaa famille bu mu romb comme arab yi ndax dafa jaar ci waadi bi maanaam ci xur wi famille bu mu romb rek waa kër googu dañuy génn ñoom ñëpp góor ña ak jigéen ña mag ñi ak ndaw ñi ñoom ñëpp dañuy génn euh, di ko jox ndox tàndarma di ko lalal euh, di ko tarxiib ci xeeti tarxiib yi nga xam ne moo gën a kawe àggoon nañ sax di sàkku naan ko euh, fii de dalwaay am na fi lépp am na fi ak koo àndal soo ñëwee danañ la lalal loolu famille bu mu dem rek mujj ki sax am na si ñoo xam dañuy jàpp ci laabu gileem gi ndaysaan yonent bi naan leen Eh, utruku naaqa fa innaha ma'mura bàyyi leen gileem gi gileem gi kat yàlla moo ko jox ndigal ca ndigal li dana ko jëfe maanaam daal bàyyi leen ko fa ma fa ma war a dal ak fa ma war a sanc eh, moom yàlla jox na ko xam na ko bi mu ci village bu nga xam ne famille boobu ñuy wax Banu Salim ibnu Aw ibnu Xawf ñoo fa dëkk foofa dajanteeg waxtu àjjuma jot fa la jullee ajjuma nga xam ne ajjuma ji njëkk a taxawal ci lislaam foofa la ko jullee jàkk jooju ba tey ñu ngi koy tuddee masjidul jumaa léeg-léeg sax ñu naan ko masjidul waadi ngir na ci xur la nekk mooy jàkk ji ci xur wi wala masjidul jumaa foofu yonent bi julli na fa ajjuma ji njëkk ci lislaam wax nañ ne sax ajjuma jooju lu mat téeméeri nit julli nañ ci ginnaawam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ajjuma jooju nga xam ne moom la julli ci masjidul jumaa xutba fa xutba bu am solo bu gàtt boo xam ne fàttali na fa ak ragal yàlla fàttali na fa mu baax fàttali na fa it bu baax a baax a baax ak solidarité ak dimbilante ak xam la ne kenn gënul sa moroom ci wenn xeet lu dul ci ragal yàlla lañ gënantee nga xam ne xutba bi njëkk ci lislaam ca jàkk jooju la ko def ñuy tuddee masjidul jumaa bi nga xamee ne nag bannu saalim googu nag romb na ko waxoon naa ca jataay ba ne bis bu yàlla sàkk waa Madina nga xam ne mooy dëkk bi ñu naan Madinatu Munawwara danañ dañuy génn ñoom ñëpp Euh, ñi nga xam ne dañ koy dégg ci mosuñu koo gis ak ñi nga xam ne jotoon nañ koo gis ca bayaatul aqbatal ula ak bayaatul aqbatal saaniya ci biñ ñëwee màkkatal mukarrama ñooñu nam ñu sax ñoo raw ndax dañ ko mujj nam nameel goo xam ne manees naa wax ne sax ñi ko gisutoon ñoo tane donte ñoom ñëpp amul nameel ci moom suñ génnee dañuy xëy suba taxaw ci mbedd yi yéeg ci kaw terrasse yi kër yi nga xam ne kër yi ban la woon terrasse yi ban ñu yéeg ci tàndal yi fa la ñu yendu ba Euh, ñu delluwaat duñ gis yonent bi sallallahu alayhi fekk yonent bi moom it yëglu na ci mbaaxam ak kóllëreem famille boobu ñuy wax na Najjaar nga xam ne ay mbokkam lañ ci wetu yaayam euh, ay mbokkam lañ sax ci wetu baayam waaye mbokk lañ yu jegee sax soxna Amina ndax dégg ngeen ci bind yële ñu ne soxna Amina ba muy dem ca Yasrib di siyaare ji ay ay ay ay ay ay ay ay ay ak i nijaay yonent bi sallallahu alayhi foofu la ko faatu dabe ban noonu na jaar mu yëgal leen ne mi ngi ñëw ca mi ngi agsi Madinatu Munawwara waa ba noonu jaar ndeysaan ñoom it ñu wax seen xale yu góor yëpp ak xale yu jigéen yëpp ak mag ñi ak ndaw ñi ñu génn dar gileem gi gàddi seen i jaasi di ko di ko dar di ko di ko di ko di ko di ko xàllal ne daal ñun ñoo yor sécurité am ndax bu dee mbokkoo moom ci tur wi ci xund wi ci ci ci xur wi ñun la gën a mbokkool ñun Bannoona Jaar wax nañu sax gone yu ndaw yi Bannoona Jaar yi ndeysaan dañ doon wayantu naan euh, boo demee ci kutubu siira da ko fekk ñuy waxat naan euh, ñun ñooy waa Bannoona Jaar euh, aka neexoon nga ñëw dëkkuwaay bi nga def ko ci sa mbokk yi nii yow yonent yàlla bi nee na yonent bi daa sëgg ba tolloo ko gone yu ndaw yi ne leen du maa bëgg ñu ne ko waaw dañ laa sopp loolu leen yonent bi daal di waat ci yàlla ne man maa leen raw ci mbëggeel ba ba jaar dar ko famille bu mu àgg rek génn ka nga xam ne mooy kilifa famille ba génn taxaw ne ko ñun ñoo moom suuf si ñoo moom tund yi lekk ak lépp am na fi foo bëggee dëkk dañ la dëkkal ak koo àndal tey dañ la aar yor sécurité waaye saa yu ñu waxee loolu rek mu ne leen utruku naaqa fa innaha ma'mura bàyyi leen giléem gi rek dañ ko digal liñ ko digal dana ko def bi nga xamee ne nag moom mi ngi commencé dugg nag madinatu wara moom yonente yàlla muhammad salallahu taala alayhi wa sallam wax nañ ne dañ doon jaawale mook abou bakar kan la ci ndax xam ngeen abou bakar ci roy gi yonente bi bëggeel gi mu am ci moom da ko daa roy ci colin ak jëmm ji it ni ko yàlla baaxale woon mu am xëy ba am waqaar goo xam ne boo mus a gis yonent bi boo ko gisee man nga koo teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir baax gi nga xam ne da daa feeñ ci ay cëram di feeñ ci dox doxinam feeñ ci xar kanamam waaye wax nañ nañu benn yeexu daal moo jékki-jékki yuuxu ca kaw ne leen waa ban mi sàngam yéen waa bannoo sàngam yéen waa bannoo sàngam yéen fami sàngam yéen fami sàngam génn leen seen maam ji ngeen doon xaar ñëw na génn leen seen maam ji ñëw na waaye nee nañ euh, niñ xàmmee ne ñaar ñee war giléem yi kan moo ci abu Aboubacar kan moo ci yonent bi ne dañoo seen Aboubacar kol gi mu koloo woon mu di ko muural yonent bi ngir naaj wi ci lañ xamee ne nag kee di muur morom ja kee di muur ka ca des yonent bi sax amul morom kee di muur kam àndal euh, kay muur mooy abu ka ñi muur mooy sang bi nag mooy kilifa gi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kanam gi kanam gi leer Euh, boo demee ci kutubu siire yi nag am na benn way yoo xam ne ni ñoom ñëpp andi nañ ko waaye boo demee ci muhaddisoon yi ñoom ñëpp dañoo dajji wax jooju ne wax jooju wérut mooy wax ju siiw mooy talaa al badru alayna min saniyaatil wadaa wajaba sukru alayna ma daa lillahi daa ayuha almabuusu fiina jita bil amri almutaa jita sharafta almadina marhaban yaa xayra daa way yooyu nga xam ne way yu siiw la boo demee ci muhaddisu ne ñoom ñëpp dañ koy dajji ne nañ way yooyu wérut waaye kutubu siira yi indi nañ ko muy wax ju siiw ju neex nag wax ju neex mooy jant bi fenk na leer gi ñëw na ah leer gi ñëw na bàyyi ko ci ñun ci barab boobu nga xam ne eh, moom lañ daa tuddee saniyaatil wadaa mooy saniyaatil wadaa ab barab la woon boo xam ne ci aada yi waa Madina bu ñu daa gunge gan ba foofu dañuy dëpp ñu ne foofu lañu leer gi dikkale foofu lañ ko gis daan ñun day war nañoo sant kon ñun ñi nga xam ne ñoo war a dëkk ak moom moom mi nga xam ne moom la yàlla yónni ci ñun mu ñëw ci ñun ñu ne kon nag dikk nga ci dëkk boo xam ne nii ñu ngi lay yaatal ñu ngi lay dalal dikk nga leeral ma madinatu munawara ñu ngi lay wax dalal ak jàmm yow mi nga xam ne yaay wootekat wootekat bi gën ci wootekat yi nee nañ lii la yónent bi lii la ko waa banaatu banu Najjaar mooy xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo bokk ci banu Najjaar doon wayal moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy gone yu ndaw yu jigéen yi doon ko boole ay tabala yoo xam ne boo demee ci kutubu siira nee nañ moom lañ doon àndal di ko tëgg wax naa léegi ne boo demee ci muhaddisu ni ñoom ñëpp dañ koo dajji waaye teewut ñi nga xam ne dañuy nettali ci siira ak taarix ñoom ñëpp indi nañ xasida googu noonu lu am lu man di xew daal mooy euh, liñ bëgg wax lépp rek moom dëppoo nañ ci mooy dëkk ba ñëpp ànd ak mbégte wane seen i mbégte Anas ibn Malik nee na yonent bi ne yunn biir ma diinatul mën madinatul munawara euh, dañoo seetlu leer goo xam ne dana tay ci biir mën a munawara péex moo xam ne daa dugg a munawara mbégte moo xam ne daa dugg ñépp bam jaral leen ñu génn di ko teeru moom sang bi sallallahu alayhi wa bi nga xamee ne nit ñaa ngi topp gileem gi mu sol lu weex tàll xar kanam gi leer nañ ñëpp ba koo dar ñépp bëgg koo jege kenn ku ne di wane sa mbégte ci moom sallallahu alayhi wa sallam euh, waa ba noonu la jaar ni ma ko xewoon rek ñu ngi ko dar yor seeni gànnaay xam nañ ne sax dara du xew waaye dañ doon wane rek ne euh, gan gi ñun suñu mbokk la ndax mu ngi bokk ci Banu jaar gi nga xam ne Aminatu bintu wax bin ci la bokk bi nga xamee ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gi wër na ba agsi ci benn pàkk boo xam ne nii Euh, dañ fa daa weer tàndarma ji wow pàkk bi loolu moo nekkoon loolu lañ fa daa def pàkk boo xam ne dañ fa daa weer tàndarma barab boobu noonu nga xam ne wax nañ ni ay jirim ñoo ko moomoon jirim yoo xam ne nii ñi ngi tudd Sahl ak Suhayl ñaari jirim yooyu wax nañ ne pàkk boobu ñoom ñoo ko moomoon ñaari jirim yooyu ñi ngi bokk ci Banu jaar gi nga xam ne ñooy ay nijaayam fa la gileem ga yës bi gileem gi yësee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di wàcc wàcc giléem gi bi mu wàccee ah, am na ku ñu naan abu ayub al ansaar yi waxoon naa leen ca bind beneen naa ko tudd ci waxtaan wi di ñëw abu ayub al ansaar yi moom la yàlla tawfiixal fi giléem gi yës mu dend ak këram mu war a dëkk ak gën gi mbindeef ah, doon dëkkandoo ki gën ci nit ñi am dëkkandoo bi nga xam ne moom la ko yàlla jagleel kenn amu ci àdduna moom abu ayub al ansaar xam ne bi gëlëm gi rek moom daa daa di yooxu ca kaw daan ne anta jaari ya rasulallah yow yaay sama dëkkandoo xasa daar yonent bi daan ne xasa daar liman abu ayub al ansaari daal di jug daar daari wa xasal baab baabi wa anta jaari ya rasulallah daal di njëkkante bagaas yi rek daal di dugal ci këram moom abu ayub al foofu noonu nga xam ne fa lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gileemam gi yées wax nañ ni gileem gi net fi minbar bi nekk minbar bi mu daa taxaw di xutba fa la gileem gi yées foofu lañ def jàkka ji ji nga xam ne mooy masjidu nabawi nabawi incha allah dinaa wut leçon bi di ñëw wala jotaay bi di ñëw danaa taxaw ci jàkka ji ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko defaree woon bi gi yéesee yonent bi daal di laaj barab bii ñan ñoo ko moom ñoo xamal ko ne ko. ñaari jirim yu ñaan Sahl ak Suhayl ñaari jirim yi ñëw daal ne ko euh, ñun de jox nañ la ko addiya yow yonent bi ndeysaan jox nañ la ko addiya yonent bi daal ne déedéet faaw mu mu joxe ci dara ndax euh, jàkk ji ko yooyu suñ borom jox ndigal mu def ko fa daa bëgg mu nekk ci moomeelam doon lu lew loo xam ne bu ëllëgee coow du ci am nee na jirim yi daal ne daal <laughs> wax dëgg yàlla euh, jox nañ la ko addiya yow yonent yàlla bi nee nañ ci la yonent bi gees Abubakar ne ko mu génne njëg goo xam ne dana tolloog pàkk bi ni mu jox leen ko bakar daal di génne nee nañu ashra dinaar génne fukki dinaar daal di koy jox Sahal ak bu nekk ci moomeelu yonent bi waaye ñu taxaw tuuti rek ci saxaaba bu tedd bii ñuy wax Abu Ayyub al Ansaari yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne cëpp Madinatu Munawwara eh, këram la wàcc Abu Ayyub al yi yàlla defoon mu nekk koo xam ne taxutoon mu mu mu am alal lool ku néewoon doole la këram ñaari néeg ñoo fa nekk muy néeg bi ci suuf ak bi ci kaw moom naka jekk ca kaw la dëkkoon mook soxnaam waaye bi yonent bi ñëwee dafa daal di euh, wax ab ne ko moom yonent bi mën naa dem ci néeg bi ci suuf ñoom niñ daa tabaxee nga xam ne kaw gi sax boo demee ay bant lañu ciy yéegi walla ban lañuy ñuy tabaxee euh, abu ayuba ku baax ku bëgg yonent bi abu ayuba nee nañ dafa tëdd guddi ba mu yàgg mu yëg ne daal moom mi ngi ci kaw yonent bi mi ngi ci suuf mu wax umu ayuba ne ko daal munta nelaw te xelam dalut man naka laay nekk ci kaw yonent bi ne ci suuf nee nañ abu ayuba al ansaari daal daal di wàcc ci suuf wax yonent bi ne ko daal bu sañoon moom mooy féete kaw ndax moom moo ko gën te mooy kilifaam ñooñu yonent bi ne ko daal dafa mel ne ndax yonent bi ñu ko doon seet si day bari ca kaw gi day jafe pour nit di fi yéeg ci la ko yonent bi joxe diggal daal ne ko mu féete ci kaw waaye nee nañ Abu Ayyub al-Ansaari dafa xool fi toll néeg yonent bi nee na mu feggu ngir bañ a féete kaw yonent bi dafa feggu ba ca mu féete su toggee togg lu tuuti tuuti day jox yonent bi ba mu xéwalu ba noppi lam des moom mu xéwaloo ko wax nañ ne Abu Ayyub saa yu ma saa joxug lekk yonent bi su yonent bi xéewloo ba mu des abu ayuba bu ubbee ndab li day xool fi baaraamu yonent bi doon jaar fa lay jaar di barkeelu moog ummu ayu moog ummu ummu ayubal ansaar yi loolu def na ko ay yoon yoon nee nañ benn bis abu ayuba jox ndab loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwee jëlaat ndab li bi yonent bi eh, joxee ndigal ne mën nañoo jël ndab li mu xool gis ne ndab li laaluñu ko nee nañ mu wàcc daal di dem ba ci yonente bi daal ne ko daal dafa mel ne ndab li tey moom ñoom dañ daa xool sëra di baaraam yi ñu ci barkeelu waaye ndabul tey li suñu ci benn yoon fu ci sa loxo laal nee bi ne ko wax nga dëgg de tey li jotuma ci xéwlu jotuma ci lekk ndax dafa mel ne togg gi dañoo toggee euh, garab goo xam ne maanaam yooyu nga xam ne day xañ ne soos bi day am day am xet xetuk soble si day day saf-sàpp ak laaj gi yonent bi ne ko man damay déeyaale ak malaayika yi ca bëgguma genn xet di ma taq ci wàllu lekk wala gu man di doon léeg-léegi nit ñi dañuy ñëw di déyanteeg man te bëggu di lekk loo xam ne nii xet gi day gémmiñam wala muy des ci loxoom yonent bi ne ko nag su fekkee yéen togg googu yéem na leen maanaam bëgg ngeen ko araamut mënees ngeen mënees ngeen ciy xéwlu nee nañ ab ooy bu dana ko ñun kay loo bëgg rek ñun loolu lañ bëgg loo bëggul rek ñun bëgguñu ko te xam ne bisu keroog la mujj toog lu mel noonu euh, xam naa nag waxtaan yi di ñëw nag ci la nag lu bari di feeñe nag ndax euh, ci lañ tàmbali nag di defar néeg soxna Sawda ci lañ ko tàmbalee euh, néeg soxna Aïssa gisagu leen soxna Aïssa ñëw ñu tudd ko ñu wax ci Xadija wax naa ci waxoon naa leen ne leen damay bàyyi ba ci étape yu njëkk yi ci Madinatu Munawwara ñu wax ci sayyidatuna Aïssa radiyallahu taala anha kon am na laaj yu bari yu ñëw ci suñu xel mooy bi yonent bi ñëwee lan la njëkk a def lim njëkk a def mooy tabax jàkk jàkk ja nuñ ko tabaxee ci yan anam lu mu composé woo ci tàmbali ba yooyu ci jataay yi di ñëw incha allahu taala lañ koy wax waaye ci jataay yi di ñëw xujuraat yi nga xam ne seen néegi dafa taqaloog jàkk ji ca xujurab saydatu saydatuna sawda kan mooy sawda waxoon naa leen ne leen soxnaa ni ku ma ci waxtaan ba tolloog moom rek damay taxaw ci moom wax ci moom mooy kan ci yan anam la ko yonent bi dencee ak mu jëm lan la ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi ñoom soxna yu baax yu tedd yooyu ridwanullahi taala anhunna euh, néeg sawda néeg soxna sawda ak euh, soxna aïcha radiallahu anhuma ci jataay yii di ñëw insha allahu taala lañ koy gën a leeral bi soob yàlla kon nii la duggee nag madinatu munawara ba mu ñëwee lam njëkk a def mooy yi ma la wax ñett yi la njëkkee bu njëkk bi mooy tabax jàkka bu ñaareel bi mooy mbokkale diggante gan ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko makkatal mu karama ñëw madina munawara mu xool kenn ku ne mu am kum la booleel yooyu dinaa ci ñëw ci jataay bi ni ñëw bu ñetteel bi mooy mu def benn contrat boo xam ne da koo def ak yahudi mu fa fekk mu def contrat boo xam ne dinaa ñëw ci contrat boobu incha allah taala ci waxtaan yi di ñëw waaye daal ba mu jugee makkatal mu karama ñu bàyyi xel ne Seydina Ali moom da ko faa bàyyi woon ngir ay yoo xam ne nit ñi dañ ko ko dénkoon te moom bëggut di yóbbu dénkaane kenn ndax mooy al amin denkaane yooyu yëpp mu battale ko sidna Ali ku ci nekk la ka moom mu wax ko ko ak nam ko koy joxe battale ko denkaane yëpp Ali topp ci ginnaawam jaar fi yonent bi jaaroon yëpp jaar Quba jaar euh, duwaaru euh, Banu Salim euh, na xaw noonu ko yonent bi jaare woon ni mu waree woon ca yoon woowu ci la sidna Ali jaar mook Fatimatu Zahra ba ñëw Madinatu Munawara nii daal ci gàttal mooy bindub tay bi nii la duggi madinatu munawara nii la waa madina bégee nee nañ ci histoire Yasrib mësuñu suta xam xew wu mel noonu keroog bañ koy teeru mësee suta gis mbégte mu mel noonu mësee suta gis nit ñu bëggee gan noonu ñoom waa ansaar googu nga xam ne ñoo dalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi wax ay wax yu bari ci waa ansaar ci seenu baax ak seeni manaqib ñoom ansaar ridwanullahi alayhim ci yàlla tagg leen ci alxuraan ci ay tagg yu baree bari kon mbokk yi lii mooy bindu fukkeel bi ak juróom-ñeent ci jataay yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci tele bu mag bi di di euh, MKTV muy bàyyi ko fii ci biir jumaay Tuubaa ju mag yi ñoo ngi sant ak gërëm mbokk yi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bii nii di leen ñaanal di leen joxaat jataay bii ñu jëmaat muy ñaar fukkeelu jataay bi nga xam ne dañuy àggale ngan gi ak euh, liggéey yu mag yi nga xam ne moom la njëkk a def ca Madinatu Munawara jataay bu fees dell ak mbégte bii nii euh, bu daw yaram bii nii moom daal nii la demee woon ci tënk ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu والإمام إمام المرسلين معا والأنبياء يقيهم في الجوى الأمما